arbitre bi sifflé na Ada Boy Baol Serigne Ndiaye mbokk yi ñu ngi noonu ñoom ñaar Ada Boy Baol moo la woon ginnaaw Serigne Ndiaye moo la woon moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Doudou mu ngi ci géew Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Doudou Sané daw na Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ñu ngi bëre Ada daw na jëli Serigne Ndiaye deux bañ ndeysaan Ada Boy Baol Serigne Ndiaye deux Doudou Sané jëli na ko Doudou Sané jëli na Doulou Sané jàpp na tànk ba booy bi rëcc na laay la laay ñu ngay booy bi rëcc na Doulou Sané nga koy añ mu booy bi bañ na ana booy baal Serigne Ndiaye Doulou Sané jàpp na booy bi booy bi bañ ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan Doudou Sané daw na jëli xale bi Doudou Sané na ko mu koy génnee Ndeysaan Boy Bawol Serigne Ndiaye Boy Bawol Serigne Ndiaye Ada Boy Bawol Serigne Ndiaye Ada booy Baol Serigne Ndiaye Ada jàpp na ci kiw saar bi Ada Boy Baol jàpp na ci kiw saaru Serigne bi ñu ngay ñoom ñaar Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ñu ngi ci compétition ba tey Ada Boy Baol Serigne Ndiaye Ada daw na daan na ko daan na Serigne Ndiaye daan na Ada Boy na leen arbitre bi woowaat na na leen nee na jël amul ay ca mbokk yi at bi sifla Ada Boy Baol Serigne Ndiaye jël na bi jël tànk bi Ada rëcc na Serigne Ndiaye fabeere ko jël na Ada bañ na ndaysaan Ada ngay bëre Serigne Ndiaye zongale na ko tegal na ko siège Ada bañ daan na ko daan na ko daan na Serigne Ndiaye daan na Ada Boy Baol mbokk yi Doudou Sané ngi noonu Franc yëngu Franc yëngu ndeysaan Doudou Sané avertissement